sama dom nijaay jai, la ñu tuddee mu delloo ko tamit sunu sunu nijaay ndax mom moy kilifam di sama kilifa di sunu kilifa ñun ñi and ak yep. yépp ah mu def lu rafet ndax nit mom budé dundu nga sa wajur yor la yar la fim la wara yaré du dundu ba ak fi ñu teurele la bes nga jël ko dello ko sa wajur bu goor té koku non mu nekk nekkul quel nit ci commune Tivaouane Peulh ñàgg ñakkurab muy nekk nit ku baax ñun ñi yépp tay lepp lu nekk ci ñun mom moko def ci ñun kon tey te ñu ànd ak suñu doom nijaay ñëw ànd ak moom ngir eh, sant si ki nga xamante ne tamit jóge na si banlieue dem fekki xale bu ndaw boo xam ne eh, feeñagul bu baax sax mu dem ñëw di ko wanaleeg àdduna ngir ñëw tamit sant si ko ci loolu ànd ak waa commune Tivaouane Peulh ñàgg ñakurab yëpp ànd ak tamit ay conseil ak ay concert ñu ngi suñu ginnaaw ci délégation bi eh, di ko sant ki ko tuddee drapeau bi di ko ñaanal sunu borom defal ko jàmm mu nekk ay dra drapeau yi drapeau ci barkeb Serigne bi nga dugg see ànd moom dafa mel ni yaa ko gën a mën fii bi nga dugg see gis gis mbooloo mi ak amateur ak làmb ji tey lan nga yëg làmb ji neex na wala neex. waa xam nga yàgg naa fi ñëw. sama nijaay bi ay drapeau lañ ko fi tuddee may ñëw mu may gungisee ñuy ànd fii moom mu koy gunge ñu koy tuddee ay drapeau may ñëw ba tuuti man chaque année tamit dañ ma fi tuddee ay drapeau ba mu fiy ñëw moom it nekk suñu doom suñu doomu nijaay nekk suñu rakk nekk suñu lépp kon tey suñu ñëwee fii ñu ànd ak moom day mel ne rek bés bi suñu bés la parce que tey lu mu am maa ko am lu ma am moo ko am ndax lu nekk ci man wala nekk ci kii moo ko def ci ñëw kii kilifa bu mag la mooy sunu lépp waaw moo tax daal sant wa alu làmb yëpp daal bëggee làmb bi. nijaay nuyu naa. maa ngi lay tey nga ñëw gunge sa doom gunge so jabaat gunge sa lépp ñëw seetaan si làmb ji bi nga dugg see gis làmb ji loo yëg. noo am ci mbégte rek ak kontaante xam naa am nga. ganaar buy nen day buuf ñu nit ñi sama doom lañ ba mu leen nen dañ leen buuf dama fas yéene mu ñaanal leen yàlla nañu dog tànk jàmm dog tànk mbokk dog tànk it ay jur bi nga xamante ne ñii lañ def ci moom ndax tey kii du tey rek la fi ñëw ay yoon yoon ñëw na fi kii sama doom la maa ko jur kii sama jeer baax la lu ma ma def ci kii def naa ko ci kii te gannaaw yàlla am ñi nga xamante ni ay samay conseillers ñi nga xam ne ay conseillers lañu ñoom laa àndal nii kii it ay responsable politique ñoom la àndal fii moom yaayam mu ngi nii kii ñii ay conseillers lañu ana ñoom bin Adja bin Sarr ñëpp ay conseillers lañu ah, kii sama karit la sama responsable la su ma yeboo maa ne kii lu ma am ñu wax ci dama baax yëpp moo ma gën baax ndax lu ma soxlaa ci kar bu ñuy jokki moom moo ma koy jox ma jokk nit kon maa ngi ko ñaanal moom it yàlla yàlla nag yàlla defal jàmm ah de yàlla nañ yàlla musal ci euh, cat ndaka euh, ñii samay njaboot lañu man maa leen njabootee am ma ci kaar benn kaar mi yàlla lii ñëw ci kii ñëw na ci kii ñëw na keneen kii sama karit la sama dëkkandoo la moom it sama nijaay la vraiment nit yi baax lañu ah su ma ne ana ana bin ana bin la fii sama soxna la mooy sama taaw mooy yaayu mama mooy yaayu mama ana bint mu ngi suuf moom it conseil la di ci mu yeboo ma ne tey ñii ñëw fii yëpp yëpp ay tànk politik lañ ñëwee fii gannaaw yàlla ak bi sant na it samay doom sant samay jarbaat ndax dama leen ji bu mënoon naa ji dugub ñu bañ sak euh, sakk waaye dama jii dugub ñu sakk dugub kon nag ay alhamdulilah sant yàlla nga nekk xale gis ñu tuddee la bés bi mu nekk yaakaar naa première fois deuxième deuxième fois de yaa ngi ko tuddee làmb mu nekk deuxième fois nga ñëw gis gis làmb ji tey ni mu mel. gannaaw yàlla bu ñu sant yàlla jël sonante bi gërëm suñu ñaari waajur xam nga di lii moom contentement la te aussi tamit lamb mooy suñu culture mooy suñu cosaan dañ ko war a jëmmal di gërëm tamit euh, ñi nga xamante ànd na ak ñoom muy sama papa sama yaay ak euh, jawriñ Basirou Ka di sama mag am nga ak père Dieng ak ñi nga xamante ni euh, père Gassama ak sama papa am jatu ñoom ñëpp presque maa leen di gërëm maa leen di sant parce que li yëpp bu mel leen ni yëpp ñoom la benn lam rek mënul yëngatu daanaka ñoom bu ñu waxee ba pare rek man aw ma dara lu mu siy kat li ma siy sànni di gërëm waa Diourbel production ñoo xamante ne yaakaar naa lii mooy seen première édition di lay ñaanal tamit fu ñuy dégg promoteur yi mag ñu dégg leen foofu di nuyu sama doomu baay Amadia waaw. moo la gën a neex ci làmb. non làmb moom làmb moom mooy suñu culture culture moom boo waxee mooy li nga moom xam nga li nga moom moom da ngay boole lépp rek bëgg voilà waaw làmb daal lépp moo ñu si lan nga doon wax xale yi nga xamante ne tey doon sa journée bi. waaw di leen ne na koo xamante ne di ko ñaanal tey mu dem defaruwaat sokk mu dem defaruwaat sport nii

Fils de Katy mbokk yi moo ne woon ginnaaw ngemboo ngemb lu bees vert et ci morceau bu vert bi ak bu bi la nu jàkkaarloon mu ngay demee wet pied gauche Fils de Katy pied gauche waaye mbokk yi Fils de mel ko xaw a ëpp tuuti laf waaye la la bu mu neex oui, Fils de Katy ngi Fils de Katy ngi koy xool Sokh cokkaas na Fils de Katy cokkaas na dëkk dóor la woon waaye Fils de Katy dóoraam na ngi koy xool dóorante nañ Fils de Katy nañu Fils de Katy Il Sokh Sokh eh Fils de soq lu mu bëgg a def soq bañ na ko ël ko añ ko ci kaw waaye fi sa yi jàpp na ci ngemb la soq li nga def est-ce que wóor na fexe la jàpp fi sa bu ñu xool moo la xaw a ëpp rocc na loxo bi daa bëgg a dóor mbaa ko dóor mu daan jël na ko daan na ko daan na ko wala daan na ko war na ko ndomba doole doole doole doole lii lan la lii lan la loolu lii lan la ñoo ngay xeex doole doole دوله واللي كان موسكوغس كان موسكوغس لي واي واي دوله واي واي واي دوله واي في سكاتي دارنا سوق دو سوق ينون تاخو قالوا انا نويه

jaa ngeen jëf. si benn bi naanu doon di bee njëma na